dinañ ñëw ci dissolution boobu mais ñu ñu taxaw d'abord ci la déclaration de politique générale on en a beaucoup parlé euh, mel na ni sax l'absent le plus présent hier c'était le premier ministre Ousmane Sonko gisaguñ ko l'obstacle c'était quoi c'était modifier euh, certaines dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ça a été fait le mm-hmm. ministre de la justice dégg nañ ko démb mu ne promulgué nañ ko le 31 mm-hmm. et les dispositions modifié. Mmh. ramené dans le règlement intérieur. Mhm. ñu promulgué ko qu'est-ce qui empêche lan moo tax Ousmane Sonko demagul assemblée nationale pour def sa déclaration de politique générale c'était il y a quelques jours. <laughs> tey tey le 3 hein. tey le 3. Hmm. kon le 31 barki démb la sëñ bi xam nga ñoom bi ñu ñëwee. dañu doon wax oui euh, euh, def nañu révision règlement intérieur assemblée nationale waaye ba léegi président de la république refuse de promulguer ça. oui parce que amuñu woon information bi aussi. Ouais, mais il a le ministre de la justice ñëw démb wax ko. c'est dans le journal officiel. publié nañ ko ci journal officiel. publié nañ ko kañ honorable man gisuma ko si man gis naa ko. Hmm. oui. quand loolu yéexul par rapport ak euh, jamono bi ñu voté la adopté la modification. yéex comment. parce que bu ñu toogee ba démb. mais mais hmm. yàggul bu ñu defee modification. waaw. Hmm. kon lan moo ci yow nga ne Ousmane Sonko bëgg na ñëw def sa déclaration de politique. lu tax président parce que on l'accuse de de faire dans nga eh, député lu ñu ko wax démb honorable ko ñemewu fa ñëw parce que xam na li mu fa nekkee woon quelqu'un comme Moussa Diakhaté. xam nga bu ñu c'est le champion de l'affabulateur il a utilisé des termes comme ça. oui oui c'est comprendre ñoom dañuy politique. dañuy politique et tout le président Ousmane Sonko. Hmm. nest yow yow bu ñu nee président Ousmane Sonko dafa ragal a ñëw assemblée nationale. Hmm. yow tu dois même te demander ñi ban Ousmane Sonko la ñuy wax. waaye du Ousmane Sonko président de PASTEF. Hmm. du Ousmane Sonko premier ministre di Sénégal. Hmm. lu tax nga wax loolu. Ousmane Sonko mën nga ko reprocher lu nag ba ba ba nga bañ a wax ni ki amul fit. kon ku amul fit mooy ragal n'est-ce ku amul xam-xam mooy ragal. mais Ousmane Sonko dina di nga naan amul xam-xam. Ousmane Sonko di nga naan amul fit Ousmane Sonko préparer la déclaration de politique générale. Mm. avec lance avec la contribution de l'ensemble des département ministériels. yore document document bu bu bu pare bu yàgg moom ci boppam wax na ko. Mm. n'est-ce pas kooku di nga naan dafa ragal a ñëw assemblée nationale foo xamante ne par exemple cette fois-ci il ne sera pas seul. mais au moins il y a euh, toute une euh, coalition derrière lui. leen majorité quand même. on n'a pas la majorité. mais mais quand je te dis ça c'est-à-dire que quand sa voix résonne. Hmm. il y aura d'autres voix qui vont résonner également di appuyer di éclairer la lanterne. lu mu jur honorable les mêmes mots. non mais c'est différent. mais hmm. c'est différent. lan mooy différence bi. non c'est-à-dire que quand tu dis euh, que le président Ousmane Sonko a peur de moi je te dis que président Ousmane Sonko nekkoon na biir hémicycle bi. oui def fa liggéey bu mujj ayib. que tous les Sénégalais ont salué. coow li bëri woon na de honorable. coow lan xeex sax def na ko. quand la était no bas non ñoom ñoo ko def doon def provocation. Hmm. oui tout sauf Ousmane Sonko. quand Ousmane Sonko vient pour euh, pour parler aux Sénégalais. pas pour leur parler mais pour parler aux Sénégalais. Mm. mais ñoom souvent seen réaction bi mooy huer ko sayute ko pour mu bañ a mun a wax ci Sénégalais. Hmm. mais il a toujours réussi mais étant seul moo tax ma ne la quand il il s'est imposé de fort belle manière léegi cette fois-ci bu amee ñoo xamante ne moom su waxee ñu dina ñu ñëw dëggal appuyer loolu dina ragal a ñëw hmm. Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa miin assemblée nationale def ko dafa miin assemblée ñu nekkoon foofu ak moom hmm. xam nañu ne ki c'est un grand parlementaire qui a le courage de ah, jàpp nga ne dina dem assemblée nationale ci quatorzième législature bon bu ñu tasul assemblée nationale ci fan yi bu ñu ko tasul ci fan yi. bu ñu ko tasul fii est-ce que vous ne donnez euh, mais quand quand le def de la république. dem ci tas boobu aussi. ñu ne est que war na xaar ba ñu tas ko Ousmane Sonko. à partir du moment où ça a été promulgué. oui est-ce que war na xaar. mais buñ ko buñ ko tasul dina ñëw. bu ñu tasul assemblée nationale. Hmm. président Ousmane Sonko dina ñëw. jàpp nga ne moom bëgg naa dem. bien sûr que oui. bien sûr que oui yàkkamti ko sax. tu vas voir le jour qu'il va venir. Mm. oui bu ñu tasee assemblée nationale. Mm. il faut s'attendre à l'autre quinzième législature mu ñëw def euh, la déclaration de politique générale s'il est reconduit bien entendu comme premier ministre. alors Abdou Mbow wax na ko démb euh, bi ñuy waaj jeexal la la session plénière. Euh, que ñu déposer une motion de censure pour mën a pour faire tomber pour reprendre ces mots euh, le gouvernement c'est le gouvernement d'Ousmane Sonko wax na ko démb 24 heures après ils sont passés à l'acte le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement euh, ban appréciation nga am ci acte boobu nga xamante ne jël nañ ko waaw damay wax d'abord ni ki yoon moo leen ko may Assemblée nationale mën na déposer nest tout moment une motion de censure bu gisee ni ki d'accordul mm-hmm. la politique euh, du gouvernement yoon moo leen ko may mais moi je dis euh, rafetul fu ñu nekk di yóbbu assemblée nationale ak euh, état. rafetul ça veut dire quoi. Euh, man gouvernement bi mu ngi soog a ñëw falu. Mm. ñu def cinq mois. léegi ñu ne ñoom dañuy déposer une motion de censure. buñ ko réussir réussir mooy par exemple ñu tas gouvernement bi. te xam nga bu ñu tasee gouvernement bi président de la république day nekkaat euh, toujours place moom du bouger. te ñu xam ne ki président de la république mën na wóoluwaat ci saas euh, premier ministre premier ministre war a wóoluwaat ci saas ministre yu yu mu taboon boobu ba léegi. mais donc pourquoi on va amener la république dans cette euh, gymnastique la mais no non le 15 non xoolal taxawal ah foofu d' abord est-ce que jaadu na yow selon toi rafet na. Hmm. ñu nekk parce que tout simplement yow da nga dem élection présidentielle. kii gagné la nga ne léegi kii duma ko may fu muy gouverner. honorable ma question c'est que ça n'a pas d'importance est-ce que le 15 décembre 2023 bi groupe parlementaire Yewwi Askan bi di déposer une motion de censure contre le premier ministre Amadou Ba jaadu woon na c'est ça la question qu'il faut poser justement parce que ah. def ngeen ko et d'ailleurs sur la base d'un règlement intérieur boo xam ne jàpp ngeen ne mhm. bu foo la ah bien entendu c'est un règlement intérieur faux mais mais tout de même lui il que xam na ni ki bi bu foo la ngeen utiliser loolu pour déposer. mais non bu ñëwee bu ñëwee def la déclaration de politique général hmm. ci même article yi lañ prévoir ki bu su ngeen su euh, assemblée nationale gisee. Hmm. ni ki euh, présentation bi dafa am lu bëri lu ci manqué. par exemple assemblée nationale mën na opter déposer la motion de censure hmm. ñun foofu la ñuy basé mais maintenant il ne faut pas nous dire. ci règlement d'intérieur boo xamante ne yéen da ko jàpp ni dafa dafa faux oui dafa faux dafa faux mais moom mais na leen métti tey ñoom bu ñu amee. intention non mais man dama la ne dama la ne yoon moo leen ko may. mais loolu laa leen di ko wax maintenant maintenant je je me dis que pour un gouvernement qui vient à d'arriver. yow gisuloo. yow da nga soxla ñu may leen euh, temps de grâce gisuloo. non ñun soxlawuñu loolu. Ousmane Sonko wax na ko mais. voilà soxla soxlawuñu loolu mais ñu ngi liggéey. Hmm. Sénégalais yi di ci teg bët. ñu ngi liggéey Sénégalais yi di ci teg bët. c'est hmm. ça le plus important maintenant ñoom loolu la motion de censure là. Hmm. on va voir euh, ce que ça va donner. su dee ci diggante bi n'est-ce pas l'Assemblée nationale n'est pas dissous. honorable y a député parce que bon yéen moom defe naa affaire yi menace la mu ñu doon si yéen. mooy la dissolution de l'Assemblée nationale. dinañ ci menace ci ñun mais y a un député. non mais parce que ni ngeen ko évoqué même à l'Assemblée la doon waxal. mooy ñan mooy euh, Benno. mais absolument si vous dites que l'Assemblée sera non non ma xaaral xaaral. allez-y ñun dañoo jàpp ne te dañ ko gëm. Hmm. ni ki les cinquante pour cent cinquante pour cent de sénégalais ñu voté pour euh, Bassirou Diomaye Faye yow dégguloo ñu naan am na euh, ñu démissionné je ne sais pas dem ci yeneen côté au contraire. ñu démissionné dem fan. mooy par exemple ñu jógee suñu mouvance bi dem feneen. Hmm. la mouvance est toujours elle est là encore. Ouais. elle est cinquante pour cinquante quatre pour cent de sénégalais. Hmm. yow fan nga dégg sénégalais yi jóg di ñaxtu di naan gouvernement bi nu mu nekk di dox ni ne ñoom ànduñ ci. Eh, kontaanuñu honorable am na ñuy ñaxtu quand même. fan la quand on a arrêté des chantiers la presse des marchands ambulants loolu ñu ngi ñaxtu. attention. attention attention au contraire. Hmm. au contraire quand tu parles de la presse là. Hmm. les sénégalais pas parlé que de la presse. non non damay ñëw damay ñëw damay ñëw presse bi d'abord. Hmm. les sénégalais sont unanimes que presse bi lu ñu leen di reprocher mooy lu bëri ci ko affaire de contrat yoo xamante ne eh, état da ko doon joxe. les conventions yooyu. mais conventions yi moi j'ai eu à m'entretenir avec euh, benn patron de presse. ma ne ko mais yéen contrat yi lan moo nekkoon objectif bi. mu ne ma objectif bi mooy accompagner la communication institutionnelle du gouvernement et que contrat yooyu ñu bëri l'ONAS lañ ko jaarale l'ONAS moo daan joxe xaalis hmm. te man ma gis fa du ma tudd ay tour ay nit yoo xamante ne dañoo bénéficier ci contrat yooyu suba ba ngoon seen liggéey bi mooy saaga le président Ousmane Sonko. ah loolu. yow mën nga ko jàppee une communication institutionnelle mën nga ko jàppee une communication institutionnelle kon ñooñu dañu doon jëfandikoo alal réew mi pour faagaagal ay adversaires politiques des gens qui ne développent pas des arguments mais saaga suba ba ngoon kon ah ñooñu yow nga da nga defee ne nu ñu arrêté seen contrat seen contrat bi dafa dafa métti dafa métti askan bi méttiwul na ah? ñi nga gis da nga jàpp ne dañ doon bénéficier wu ci euh, ci convention bi non non déggul oh, pas de presse hmm. des gens qui ne sont pas des journalistes qui sont dedans des artistes hmm. des artistes qui ont bénéficié de ces mêmes contrats hmm. et artistes yooyu ñëpp leen di dëgg chaque jour mu ñu génne di saaga président Ousmane Sonko loolu mooy contrat pour communication institutionnelle. Hmm. loolu mooy contrat pour accompagner la communication du gouvernement. je suis désolé mais quand tu parles des des marchands ambulants ils ne sont pas euh, des ans à part hein c'est des sénégalais bu ñu nekkee ci situation boo xamante ne jaaduwul. Hmm. mais dañ leen a war a wax c'est vrai bañuñu ngeen daan seen doole mais ni ngeen nekkee di daan seen doole baaxul. parce que au même moment que yéen yéen a ngi occupé trottoir bi n'est-ce pas di jaay. Mm-hmm. mu am ay sénégalais yoo xamante ne dañu war a jaar fii nii pour des urgences. Mm-hmm. boo nekkee ci zone boobu par exemple nga war a dem dans zone hôpital. fekk ñooñu dañoo baare créer embouteillage bi. Mm-hmm. mais mais nit ki ma euh, ma mën nga ñàkk sa bakkan en cours de route. jigéen bu war a dem hôpital par exemple pour accouchement. mënul dem facilement. vous pensez que donc cette occupation anarchique. de la voix de la société mmh. elle est normal mm-hmm. kon mmh. donc ñooñu euh, euh, le, le gouvernement a pris ses responsabilités en disant que non ça ne doit pas se passer comme ça mmh. vous pouvez venir vendre mais vous n'avez pas le droit d'obstruer le passage. Euh, parenthèse la woon sax ñu des ci